similaire koy jot day jot na ginnaaw de tribune yéene kaay ne waaye coronavirus bi la day waaw fi mu nag ñëpp nag war nañoo nag ñëpp war nañoo tiit ndax ñi am coronavirus démb day loolee moom mosu fi am juróom ñaari téeméer ak fanweer ak ñett allahu akbar la ilaha illallah waxuma la dara sax waaye ña nekk dee raya waaw lal ya fi mu nekk del saturé na kay doomu jàngoro ji la delta ba ma di wëndeelu ci biir réew mi jikko yi nga ni moom la sénégalais waaw xam nga lan moo koy dëgg la ah? lu tolloo 733 cas ci benn fan allahu akbar l'observateur ne gis nga covid gi lée waaw fay rek mbaa dee war di tali ay daay la la fay xaalis mbaa dee ndax suñu hôpital yi ci boppam kon fi mu nekk ni lée daal dell dell sax bay tuuru kay débordé clinique yi nga xam ni kon privé la la ñuy sàkku daal fi mu nekk ni mooy ñaari million gën a ci malade bu ne ngir ñu jël la en charge allahu akbar laa ilaha illa allah yéeni kaay ngelaw li nga xam ne sax moom la kaay garaaw yi di nooyi oxygène bi waaw mais dafa bari ngelaw la dafa bari docteur Babacar Gueye di directeur wi nga xam ne mooy xeex mbas mi la nee na gis nga quantité wu oxygène wi nga xam ne moom la kaa garaaw yi kon di nooyi ci atum lumbu daa normal waaw jàppale ne la ñuy nooyi ci atum lumbu googee la ñuy kon ci weeru yàlla ci biir mbas mi un mois bi la ilaha illallah sur quotidien moo tax it Macky Sall day waaw jël na ay mesures benn takk masque yi ci boppam kon Macky Sall nee na na dooraat ndaje yeeg déplacement yi nañ ko limité nañ leen ko bi waaw Macky Sall nee na nañ leen ko dekkalaat leen fa yéene kaa moo président Macky Sall day waaw daal dinay tëj buntu conseil des ministres yo conseil des ministres léegi amatul de uh-huh. waaye ministres yi tamit Macky Sall nee leen doo leen jël vacances ay la la enquête yéene kaay ne mu nekk ni même bu dee sax kaay ñii mu nekk nii bari a doy waar kat téeméer boo jël juróom fukk wala juróom benn fukk na ñiy pikiru di vacciné kay ñoo néew téeméer boo jël ña nga ci juróom benn di 6 pour cent le quotidien yéene nguur gi kay daa mel ne leen a jëm pikiir laa la wax ah, defuñu dara di amul benn stratégie boo xam ne indi nañ ko ngir xeex ak mbas mi lee booy benn ñaar jëli dogal wàññi ndaje ak yooyee France daal di xibe Guy Marius Sagna ci 24 heures waaw nee na gis nga troisième vague bi lee turandoo Macky Sall la de troisième vague bii Macky la tudd sant Sall yu Marius Sagna ne yow Macky Sall ngay jiite am réew moo xam ne yaa ngi leen di gën a ndóolloo ndax jëlloo moomul yi tubaaba amoo ay hôpital yu yi indee ko yóbbu ngir say ndaje di gën a xumb ndax la xewoon ca weeru février ak mars yo yooyee daa tourné sa bopp bi traumatisé la nga bëgg a fayu di wan nit ñi ne réew mi yow lañ àndal ngay dajale ay nit te mosuñoo génn ci corona comédie gi ci corona politique ci corona business Guy Marius Sagna ne gis nga corona gi lée théâtre la quoi yow cinq cent cas coronavirus kii Sénégal di yëngatu te yow juróom benn fukki xale soixante enfants yoo xam ne amaguñu juróomi at dañuy dee bis bu nekk laa la wax bis bu nekk dañuy dee maanaam ñaar fukki junni ak benn ak juróom-ñeenti téeméer mille neuf cent morts ci xale amagul juróomi at ci at bu ne ñooy dee te kenn waxu ca mais kenn du ci wax parce que xale yooyee di dee nekkuñu ay doomi ministre xam ne seen loxo dafa jot seen ginnaaw di ay taxir Macky Sall day waaw dóor na yat wa Abdoulaye Diouf Sarr de évidence yéene kaay ne waaye est-ce que buñ tabaskee ba pare waaw est-ce que confinement du amaat est-ce que duñ dugalaat nit ñi kon seen biir kër ya critique yéene kaay ne tabaski bee coronavirus ba day waaw mari naat bu saf sab la nar a nekk laa wax explosive ndax nii doomu jàngoro ji demee day ak boroom kër yi nga xam ni xar ci boppam moo leen nelaw askan wi tabaski bi leen dal dem ngeen dikk gee ngi mel Sall ak justice boo xam ne kumba am nday ak kumba amul nday moo fi am njiital Pastef ne waaw wàllum njuuj njaaj escroquerie la ñu lal ci justice bi de Ousmane ne yéen sénégalais yéen laay waxal mën nañoo sàcc seeni milliards yi milliards ci ay impôt jaare ko ci am justice boo xam ne day Macky Sall da leen di ruux lu mu leen wax la def procureur baa ngi ni la ne du yëkkati benn baaraam laa la wax te ko ci kaw ñi nga xam ni ay escroc lañu te bokk APR 2021 Samba Sall te ni ma woon man Sonko gis nga keroog ba ma la dégloo 2019 ni partie civile waaw samay kilifa ci boppam dañoo yëkkati woon yàpp yi ko sama kaw ci dossier 94 milliards yi la ak Mamour Diallo Mamour Diallo moomee ci source ak direct news waaw daal lay tontu de parce que Mamour nee na sénégalais yi ñu fal mukk homme politique boo xam ne kon dañ koo tudd ci wàllum viol Ousmane Sonko na dem wuyu ji leeral sénégalais lan moo xewoon ca salon de massage waaye gis nga Adji Sarr tey cey bàjjo bi cey bàjjo bi bu la mu waxal Ousmane Sonko moomee ci ay seede nekkul dëkk section 8 bu loi numéro 19 65 60 day du 21 juillet 1965 ci code pénal bi lée article 356 waaw nee na képp koo xam ne da ngaa seedeel nit moo xam tuumaal nit ki wala jéem a nit ki te la nga wax nekkul dëkk waaw yow moom gën a gàtt danañ la tëj ci kaso bi lée ñaari atu yàlla gën a sori juróomi atu yàlla danañ la amande ñeenti junni jàpp juróom benn fukki junni bu dee na ki nga tuumaal dañ koo tëj juróomi atu yàlla te la nga wax nekkul dëgg yow it danañ la tëj juróomi at yàlla kon nag aji saar baajo bi xoolal li ngay tuumal Sonko bu baax sur quotidien ne cumul des mandats day diggante yorin gu bon ak yu àndul xoolal maître Moussa Bokar Thiam nekk maire Ourossogui agent judiciaire de l'État Racine Talla directeur général RTS maire Waxina Nimza Idrissa Seck président du conseil économique président conseil départemental bu Thiès professeur Moussa Baldé ministre agriculture président conseil départemental bu Kolda non seulement àndul waaye yorin nga nii mbaa du Macky Sall foofu la nar a génn moom la nar a jiital Abdoulaye Wilane day ci info yéene kaay waaw nee na dem ci ay élection locale comme 2014 la ñu defoon dong lañ nar a defar évidence yéene kaay ne meeru Kaolack ba day Mohamed Ndiaye Rahma waaw ay sëtu ay ñes day song nañ ko ba pare investir Abdoulaye Khouma grand place ne Abdoulaye Khouma day jël na sax ay militant PDS Pastef mouvement associatif ba waa leew na tam ña nga ca biir Abdoulaye Khouma record yéene kaay ne waaye lan moo tax ba turu Yékini bii di feeñ ci diggante Bombardier ak Balla Gaye mbaa du Yékini kon daan bi ko Balla Gaye daane loon 2012 mbir ma da koo miti ba léegi Balla day ak a mën a bëri <laughs> waaye Balla Gaye de ak lu mën a bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree mook supporter am yéeg mook waa koñam waa géejawaay yéeg mbokk waa Casamance am yéeg soo sa ci ndey soo sa ci bàyyoo nañ xam ne pétrole bi moom ci lañ parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere